liggéey ci wàllu développement durable liggéey ci wàllu maanaam koom euh, ci wàllu tàggat ndaw ñi euh, ci wàllu formation euh, ci wàllu métier yi jàngaleen métier ba pare gunge leen ci ba ñu ber seen daara ci seen i atelier ci seen i entreprise projet bi li mu jot a def ci ci commune yëpp déjà mooy commune bu ci nekk am na benn lu naan centre de service boobu mën fa taxawal centre de service boobu ñu créé ci biir commune yi day permettre au moins mu am benn genre mu benn accueil ba nga xam ne ni ndaw bu jóg wala jigéen bu jóg bëgg liggéey wala mu am idée formation mu ñëw ci foofu ñu accueillir ko tàggat ko ci centre de formation yu ci mel ne CFAM yu ci mel ne yeneen dëkk yoo xam ne am nañ fa yoo xam ne ni daal ci mën a jàppale financé leen ba ñu bersen daara tey fi may wax ak yow à Louga am nañ 75 jeunes yoo xam ne formé nañ leen d' abord déjà ak 9 start-up xam ne nii jeunes yooyu dañoo regroupé ci ay neuf start ñu financé leen déjà jot nañ seen financement ba pare ñi amul financement ñu jàppale leen ay bourse de stage ñu dem ci entreprise yi ci mën a ñu mën a def seen continuer seenum njàng